gërëm leen it ndax dañoo ñëwoon ci màggal gi ngeen dalal ñu am kàddu yu am solo yu ngeen wax ñu am lu ñu génn gis kàddu yooyu firndewu bu baax a baax a baax ndax lañ ca doon ut yàlla may nañu lu kaweloo la kon ñu ñëw dellu si santaat leen ci loola te di leen fëddali ñun seen taalibe dong lañu rek amuñu grade bu ëpp loolu ak lu nit mën a wax wallaahi ak fii ma toog nii seen taalibe dong lañu seen njaboot lañu lépp lu ngeen xalaat ma wax ko ci kanamu seede bu ngeen ñu wooye wala ngeen yónnee ci ñu lu ngeen ñi ne yëkkati dinañu yëkkati lu ngeen ñi ne teg leen dinañu teg donc di feddaliwaat kóllëre moom waaw jërëjëf nag jërëjëf Mbacke ñaan yàlla nag mu yokk mu yokk leen wér gu yaram bu baax a baax ndax réew mi soxla na leen réew mi soxna leen di Mbacke ndax réew mi soxna leen li mu wax dama koo xam soxna leen torop bu soobee yàlla jërëjëf dégg la loolu xam nañ ko ci yéen loolu xam nañ ko ci yéen ñu ngi leen di gërëm bu baax Mbàkke ñu xam naa nag bu lii lépp weesoo moom dinaa xoolaat beneen bés bu gën a dal boo xam ne dinaa ñëw ziar si ñu mun ko bu baax loolu dama koo ñaan ci ñaan ko en tant que taalibe ñaan ko en tant que doom ñaan ko en tant que sët waaw loolu ñaan waaw sëñ waaw bu soobee yàlla waaw jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke dégg nañu trop dégg nañu waaw